Touba buntu kër Cheikh Abdou Lahad fi nga xamante ni moom lañ joué su a kanam tey nag ku ne xam na bisu tey bi muy journée xasida bi ah, ni ñu sa ah, leen di bu baax a baax di leen jox seen wàcc waaye soxna Ndeye Diop laa tudd Janatu bokk ci Touba ca kanam nekk vice présidente bu commission santé en même temps membre commission organisation ñu nekkoon fii nag tey ki journée xasida yi eh, ginnaaw bu ñu sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké muy yàgg fi te wér lool waaye noonu lañ koy ñaana suñu kilifa yi euh, ci njiital sëñ Abibou Mbacké ak mboolem ñi nga xamante ni ñoom la àndal sëñ Abdou Laat sëñ Abdou Fatah Gueye ak euh, sëñ Babacar Lo mi nga xamante ni moo tax tey ñu teew fii ak Abdou Khoudos Sakho ñi nga xam ñoo jiite organisation ma fekkoo soxna Ndaak Seen soxna Maam Jaara Jaw ngeen fekk ñu fii nag ndax ñu lu ñu yàgg a def la depuis ba ko sëñ Mountakha tàmbalee ba tey chaque année dañuy nekk fii ci waañ bi muy waañu Touba ca kanam waañu nag li ko tax a jóg mooy berndeel taalibe sëñ Bamba yi nga xamante ni ñoo ngi jógee fenn fu nekk rek di ñëw ci liggéey sëñ Touba bi te ku ne xam na ne Touba ci kanam moom euh, yaakaar naan kenn naatal leetu ko loolu moo waraloon suñu teewaay fii ci waañu incha allah macha allah damay daal di jox sama beneen soxna Ndaak maa ngi lay ziar soxna Ndaak ñu bu baax yow gan kuréel kii nga ji ci kuréel ñun ñu ngi ci organisation ci lañ bokk ci membre Touba ci kanam la ci membre Touba ci kanam lañ bokk ñu nekk organisation soo ko waral suñu teewaay fii mooy waañu Touba ci kanam Euh, jàmbaari sëñ Touba yoo xam ne ñu liggéey sëñ Touba xéewal yi ñuy defar ak benn dañ koy indi fii waa Touba ci kanam ci demee ni ndox café ataaya lépp fi ñëw laax fi benn daal léppay ñëw daal léppay ñëw benn daal léppay ñëw waaw waaw ah, bu ko defee maam Diarra Diaw moom mi ngi sama ginnaaw soxna maam Diarra maa ngi lay ziar ñu ngi leen di ziar bu baax kii nga yore ci Touba comme ci wàllu organisation bi rek ci lañ nekk waaw léegi ci suba ba tey ñu ngi nekk ci organisation tubaa ci kanam bi bépp bernde daal boo xam ne si ne moom lañu war a berndeele muriti sëñ Bamba yi yëpp ñu ngi fi te lépp muriti sëñ Bamba yi rek ñoo ko fi indi di ko jaayanteeg Serigne Touba ci bis bi nga xamee si ne lépp lépp ñëpp la lu ne ku ngi ci nga xamee ne si ne sëñ Mountakha Mbacké Bassir mooy ki nga xamee ne si ne moo waral bis bii ñu di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak fekkeek tal ci barke Serigne Touba ba lépp li mu yéene liggéeyal maamam ci yoon mu def ci lu kawe njortam ndaxte lépp lu ñuy def ngir yàlla ak jëmmi sëñ Mountakha Mbacké la ndax li lépp mooma ndaxte euh, bu ñu demee ba nga xamee ne si ne ñu ngi organisé bisu xasida ba Touba ci kanam di ci am benn programme boo xam ne si ne ñu ngi koy def ngir yàlla moom la ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm te di ko jaajëfal bu baax di leen sant yéen waa presse bi tamit nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te di leen jaajëfal di sant soxna Ndey Diop ak soxna Ndaak Seen mi nga xamee ne si moom lañ àndal fii ak euh, sëñ euh, Abdou Khoudous Sakho mi nga xamee ne si ne moo nekk suñ président commission bi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar waaw. damay daal di ñëw ànd ak Abdou Khoudous nga xam ne moom mooy président commission bi te Abdou lay ziar bu baax a baax. mel ni soxna soxna Ndar mu mel ni euh, tam da nga ciy sànni kàddu si Abdou Khoudous en tant que euh, mm, waaw sant rek sant mbooloo mi nga xam ne tamit ñoom ñoo ko taxawee ndax wax dëgg yàlla lii ñetti at a ngi nii ñu ngi koy taxawee. waaw te bis bu rek yàlla defal nañu ci tawféex ñu ngi ñaan tamit tawféex yooyu suñu borom di ko gën di ñu ko gën a dolli rek ci barke borom Tuubaa ñi ngi koy taxaw tamit yàlla wéral leen kàtt na leen ba saa suñ di jëf rek suñu borom kàtt na leen bañ mën a jëf barke borom Tuubaa di sant Tuubaa ci kanam baax a baax nag ndax lii lépp moom la waaw jërëjëf macha allah jërëjëf euh, président Sëñ Abdou Khoudoss Sakho ak soxna Ndeye Maam Jaara ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mel ni tam waa Touba ci kanam gis ngeen seen liggéey bi macha allah liggéey bu mucc ayib la ñuy def lépp rek ngir berndeel taalibe yi ak nga xam ne ñoo ñëw fii ci jumaa ji ngir journée xasida bi nga xam ne Cheikh Modou Mountakha moom moo ko santaane bu defee itam maa beneen jëwriñ boo xam ne ah, du ñàkk mu sànni ci kàddu maa lay ziar Mouride waaw Mouride ñoo ngi delloo ba bu baax a baax Axma laa tudd Ngom yow lan nga ci kuréel gi waaw man euh, membre laa ci Touba ci kanam waaye maa ngi jóge ba Dakar waaw teewal fi seigne madjay Ngom jëwri ni Touba kanam te dakaro waaw ah, buñ ñu waxee kanam tamit te bisu mel ni day ñew participer ci wane itam solidarité ak social euh lan ngay wax ci lu ni mel itam benn nga xam ne indi ngeen ko ci wàllu organisation waaw lolu Touba kanam yag na ko taxawé ma sha allah ndax danaka bari na bëss yi am ci yoonu mourid yépp Touba kanam kenn du ko ci jitu kenn du ko ci man ma sha allah dañ ci taxaw di ci def liggéey bu rafet rafet comme ni nga ko gisé ni rek xew-xew yi murid yëpp daanaka noonu lañ taxawé ma sha allah di ci def liggéey yu am am solo comme ni ko gisee rek waaw saa su ne noonu lañ koy defee at mu ne noonu lañ na euh, Touba ca kanam à fois rek nii lay demee di soññaat bu baax a baax mboolem waaw maa ngi ak beneen boo xam ne euh, moom it du ñàkk mu sànni ci kàddu euh, tur la waaw ah, Sidi Diop Sëriñ Diop Sidi waaw lan nga ci si yaar bi wér maanaam ñoo yor waa wàllu machine yeeg machine waaw ne ci terrain bi liggéey ñu waaye équipe technique bi ñoo ñoo ko yor

fu sëriñ boo xàcceb liggéey daal moom ña nga ca waaw muy laaj ñu ngi joxe. ñu ngi ci joxe waaw. jërëjëf euh, macha allah itam dañuy bu ko defee maa ngi moom it lan la ci kuréel gi. waaw kuréel gi mooy après noo fas yéene ànd ak Touba ca kanam ci liggéey bu rafet d' abord balaa loolu sant sant sëñ Mountakha yàlla ko gudd fan ak di ñaan tamit euh, li nga xam ne jublu na ko ci lii muy jàmm xewal ak nawetu barkeel yàlla na yàlla defal na ko ci. te aussi tamit di sant waa Touba ci kanam bu baax ndax tamit aussi seen liggéey rafet na ah, bañ na ba chaque année daanaka dañuy ànd ak ASC ah, ci liggéey bu rafet ci njiital Mame Fallou Dieng di ko ñaanal moom tamit fan wu gudd ak wér ndax taxawaay bi macha allah rafet na trop lii laal wax dëgg yàlla rafet la laal di ñaan yàlla nañ ko yàlla ah, yàgg ànd ay ay ay année waaw loolu laa amoon ci lu may wax. jërëjëf sëñ Abdou. ASC ànd euh, seetal Touba ñoom itam ñu ngi leen di gërëm ci njiital Mame Fallou mi nga xam ne mooy président bi an ñëwoon fii nag ànd ak waa Touba ci kanam defar couverture bu am solo macha allah participer ci bis social bi jaajëfal leen bu baax a baax euh, waaye itamit euh, continuer ngir toppal leen programme bi nga xam ne moom mooy xew fii nga xam ne moom mooy ci ji jërë ngeen jëf. ma di rafetlu bu baax li nga xamante ni moom moo di journée xasida bi Serigne Mountakha Mbacké woote wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di si am wér te di si kontaan bu baax di wax ci li nga xamante ni moo di taxawaay ASC na ko comme ni nga xamante ni yàlla dogal leen noonu la ko daan defee ci boo xamante ni rek sëñ Mountakha woote loo xamante ni lu jëmale dëkk bi kanam la ñun lu si mës a des ginnaaw danañ ci way di ci jàpp bu baax a baax comme ni daan doxee tey nag na ko nam ko daan defee ànd ak ni moom la fi doon séddale café yeeg meew yeeg añ yi doon togg ak lépp rek ba ci palais pare après bale li nga xamante ni moom moo di jumaa jeeg fi daaloon yëpp daal di xaar sëriñ bi def ñaan ñu daal di yeeweeku ñuy sant bu baax tey ñaanal ñi nga xamante ni ñoom mooy sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal ASC taxawaayam gën a yàgg ci réew mi ak ñi nga xamante ni ñi ngi si di si jàpp ku dégg bëccëg suba ngoon amuñu seen fay ñoo ngi sant bu baax a baax wax dëgg yàlla lépp rafet na di ñaan ñu fekk ko ay déwén